Sénégal moom Aïssata Tall Sall ne woon na démb bu amee dañ ciy bokk ndax c'est une bonne idée. absolument hmm? une très très bonne idée. waaw dafa doy sëkk nag ay coup d'état ci Afrique de l'Ouest mais regardez ce qui se passe au Niger. Hmm. yow président la bu ñu fal démocratique. waaw ñëpp saluer. ñëpp ko. Hmm. dafa ko foofu tooxi ab jeune ab ay militaires yoo xam ne da poste yi ñu yoroon da ko bëgg a jël ñu di ko coup d'état mais sëñ bi loolu mooy lan. on doit pas laisser faire. mais bien que l'Afrique, pas seulement la CEDEAO, mais l'Afrique mm -hmm. des, des, des, bataillons pour envoyer le Niger pour ñu pour ñu nangu. mais loolu est-ce que doon conséquence bu dramatique dans mesure où euh, Mali ak Burkina nee nañu ko attaqué Niger attaqué nga leen te ñooñu aussi ñu ngi sollicité euh, waa Wagner bu Burusi. waaw dama ne Mali ak Burkina xam mënuñoo xeex ak. non ñooñu xeex ak kenn. mun jihadiste yi nekk seen réew mënuloo leen dara noo mën a xeex ak armée bu Nigéria ak armée bu Sénégal. mais bu wax ne seen gànnaaw. ak neer xelam xalaatu ko. du ko sax jéem. Hmm. lu tax du ko sax jéem. lu tax du ko ay itam bu ko daay que Poutine dina jëndee Afrique yi euh, li ñu les parcelles burkinabé et malien la les tartarins la caxaankat yooyu. <laughs> dama ne moi j'encourage la CEDEAO et s'il faut même faire maanaam avoir une une armée de cent mille militaires. ñu envoyé leen Niger pour ñun ko ci bëgg hmm. yu nekk foofu di xëble sénégalais yi. waaw ñu ngi koy dégg. nañ ko teg fi suuf. Nigériens yi nekk Sénégal nañ wax ak seen bokk yi nekk Niger. Mm-hmm. ne leen benn kawoor sénégalais bu ko dara dal. kawoor sénégalais bu ko dara dal. sinon bu ko dara dalee dana dana tàng jëri ci ñoom. au nom de ay Nigériens dem di attaqué ay Sénégal di leen xas ak di leen menacé ñoom bu ñu amee ko ñu wax seen soldats yu bon yooyu lañu war a wax mënuñoo xeex. ça c'est vrai mënuñoo xeexu terroriste ñetti fan yu ne ñu def mm-hmm. nañ ko wax. maintenant xam nga aussi li ma gën a metti mooy da gis bu dara yu mel nii xewe nga gis ay ay africain jël ay drapeau russe nan dañ koy remplacer drapeau France gàcce réwut loolu soppi maître taxute moom sa bopp mhm. et c'est honteux russe yàgg na fii réew yi Union soviétique nekkoon di ko rab lan lañ est-ce que développé nañ est-ce que am nañ démocratie non il faut qu'on arrête de ces farces